première demi-finale arbitre bi sifflé na diggante Tony Junior ngemboo ngemb lu orange li woon ñu càmmoñ ak Papa Gueye Mouma ngemboo ngemb lu ñuul woon ñu droite woon ñu ndijoor takk ay sévières yu bleu ñu ngi noonu ñoom ñaari xale yi ci diggi géew ba beneen demi-finale ba arbitre sifflé na ko diggante ngan seen la baaxe ma ci turu ponkal bi boo pare waaw am solo jërëjëf Tony Junior Papa Gueye Mouma demi-finale ba ku daan fekki ngañ seen en finale Papa Gueye Mouma daan na Papa jël bu allahu akbar Tony Gueye eh, eh, Tony daan na Papa Gueye jël bu rëy allahu akbar